Babacar Ngom man maay euh, responsable marketing communication bu KFC Sénégal alors ndaje bi tey dañu bëggoon euh, justement suñu xarit suñu famille euh, média yi sénégalais yi ñi nga ñi nga xam ne ni sekk nañu ak ñoom jàmm ñëw fii mën a ñam suñu produit mën a ñam KFC mën ñu wax lu si xalaat mën ñu wax ndax authentique na ndax vraiment li ñu doon xaar moom lañu ci am wala déet tamit bëggoon nañ tester suñu équipe parce que équipe bi ñu am euh, vraiment c'est des femmes parce que fii ay jigéen kese ñoo fi liggéey loolu mooy concept restaurant bi yoo xam ne nii entraîné nañ leen defal nañ leen ay formation pendant entre 4 mois ba 6 mois voilà ci dëkk yu mel ni euh, Afrique du Sud Ghana ak euh, Côte d'Ivoire léegi dañu bëggoon ñooñu am seen entraînement voilà ñooñu mën a xam jour bi ñuy ibbi nit yi bu ñu bëree naka lañ koy gérer yan problème la ñuy la ñuy jànkonteel ak ñoom seen yooyu dañu accès aussi Euh, aux femmes dañu foog ni vraiment jigéen ñi dañ leen war a jàppale parce que ay jàmbaar lañ tamit dafa am opportunité yu bëri yoo xamante ni si duñ ko mën a am euh, du coup on s'est nañ jël jigéen ñi ñu mën a liggéey si restaurant bi mën a euh, promouvoir en fait la la la la l'emploi des femmes comme li ma ko waxee si monde bi am na plus de vingt et un mille KFC dans le monde bii rek moo si ne KFC boo xam ne ay jigéen kese ñoo fi liggéey loolu mooy benn ñaar restaurant KFC bi c'est le seul au Sénégal boo xam ne nii dafa am drive drive mooy maanaam da ngay ñëw ci sa biir oto ngay toog dafa am ñetti borne première borne bi fi ngay jëlee commande mooy yi ñuy gis fii nii ci ngay xoolee le menu bi ak lan nga bëgg de euh, nga commandé foofu li nga bëgg deuxième borne bi foofu ngay fayee troisième borne bi nga récupérer sa commande wiiri dem beneen côté bi génn sans pour autant euh, voilà wàcc sa oto voilà. le 5 nag ngeen woote benn journée bu mag lancement lan moo waral journée boobu. voilà le 5 nag mooy euh, ouverture officielle aux euh, aux clients. Euh, à partir de 10 heures la ñuy ibbi 10 heures tout le week-end ce sera 24 heures sur 24 donc euh, clients yi mën a ñëw ñam euh, lekk vraiment passer du bon moment ensemble euh, dina am ami animation dina am euh, des jeux concours beaucoup de lots à gagner 100 premiers clients yi dinañ am ay cadeaux dinañ am ay lots KFC yu ñuy gagner dinañ am tamit ay goodies ay gadgets ak yooyu deux premiers clients yi premier bi ñëw drive ak premier bi ñëw restaurant dina am un bucket mensuel offert pendant toute l'année voilà et plein d'autres avantages yoo xam ne nii euh, ñu ngi ci daal ce sera des surprises yéen daal ñëw leen rek week-end bi moom 24 heures sur 24 la pour ñëpp mën a kontaan ñëpp mën cee lekk voilà. Eh